Buddha الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يتحول ولا تتخيره الدهور والأعصار ولا يفني حدثان الليل والنهار وهو الذي أنشأ الوجود من العدم وخضر ما كان قبل أن يكون في اللوح والقلم وخلق آدم وجعل من نسله العرب والعجم واصطفى منهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكمل ونسخ شريعته جميع الشرائع وأوجب طاعته على القلائق انتظم في سلك المهتدين وعلى آله وأصحابه وقديمه الأعصم خاتمة المجددين خوص شقلين القائد في اللجة بهر اليقين مولانا ووسيلتنا إلى الله خليفة رسول الله في الأرض فهو قادم رسول الله مولانا الشيخ أحمد بامبا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ين بوك ييغا خامتيني ين جوغي تياروي دي دائره نور داريني ñu ngi leen di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci kàddu sëriñ bi kàddu gi nag lépp lu ci dëng man may wax la waaye lu ci jub rek mooma ndax moom ku mat la tey tamit ña mu àndaloon ñu mat lañu waaye man mi nga xamante bi ne maay wax nag lu ci yàqu mbaamu juum ci rek maa ngi koy jéggulu ci kanamu mbooloo mi di leen yëgal ne sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di waxal jaajëf ab jullit nag dafa amul lu ëpp doole ak cant ndax maam sunu aadama alayhi salaatu wasalaam kero ba mu tooñee sunu borom ba yàlla génnee ko àjjana ba muy jéggalu yàlla ba yàlla jéggal ko indi ko fii ci àdduna baat ba mu ko wax ba yàlla bégg ko mooy alhamdulilah yontu yàlla yuusufa alayhi salaatu wasalaam keroog ba ko doomi bàyyi mi tàbbalee ca bënd ga ba ñu ko génne waate baat ba mu waxoon mooy alhamdulilah seydina ibrahima alayhi salaatu wasalaam keroog bañ ko ba namrus tàbbalee ca sawara wa ba yàlla musul ko ca yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima baat ba mu waxoon mooy alhamdulilah. loolee di dox di dox di dox di dox ba agsi ci sang bu tedd bii nga xamante bi ne mooy mu jëddit xarna raabi al asara xarnu bu fukkeel ak ñeent moo ko yeesalaat jëmm ju tedd jooji nga xamante bi ne moo waxoon ne amara nii rabbi bi an usarriha bi ànd ni man jan wa malaasun wa mafarun fa man araada najaata fikil tey daari ni falirus bii yàlla digal na ma ni man maay wéeruwaay may kay may kay ku bëgg muccu aduna ak alakhirah kay wiru ci man qadim rasul sunu borom may ko lam ko may defal ko lam ko defal ligeyam bobé lam muy ri ri ri ri lam ci wax moy alhamdullilah ba dégg nga muy wax sax naan chakartuhu is bi khidmatil maahissanii saa xidmatin fi lahu wa fakka wa sakartuhu ku sant yàlla la sant mënut a romb cant ñu ne ko lu tax mu ne is ngir xas sa nii daf maa jagleel bi xidmata may liggéeyal koo xam ne maa hissa ni fu ma ko liggéeyal rek ñu far samay bakkaar daa xidmatin fi àll dinaa ko liggéeyal ci lu biir loxoo ndax liggéey bi ma ko liggéeyal wa fakk ci la dajjee wala mi bépp métti wala bépp jéng bu naroon a am ëllëg loolee di dox di dox di dox di dox ba sun borom dimbalee ko njabootam gu mel nii muy kan muy Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Ahad mu tedd moom yi nga xam ne moom la wuy juróom wu tedd wa sëñ Ablaay Jaxate doon wax naan a cheikhu abdul ahad taqdimuhu jamula waxtasahu llahu bilfadli alladi kamula faxrul muridina man afla damasatuhu li ali walidihi ma anhumul kasala di jëmm joo xamante ni bii ne aw turam képp day yar doomu aadama alxuraan doon nañu wax ca ba muy saraa qul huwallaahu ahad a cheikhu abdul ahad wahidun fi dahrihi li ibadatillahi tabaraka wa taala kenn lay doon ci jamono koo xamante bi ne ku bëgg a jaamu sunu borom boko xolé ci mom man ko roy ku bëgg a boko xolé ci mom man ko roy Cheikh abdullah doon ko xamanteni bi ne ku ragal yàlla la won Cheikh abdullah doon ko xamne ku yërëm la doomu aadama yi la won Cheikh abdullah doon ko xamanteni bi ne murid sadiq la won Cheikh abdullah doon ko xamanteni bi ne inqasul insan min al mahlaka ila saadatil abadiyya daan xettali doom aadama yi ci alkande yobul len ci taxé ko sax dak Cheikh abdullah doon ko xamanteni bi ne ñett yi ko teunkun ci ak dundam moy li seigne touba doon ñaan yàlla Cheikh abdullah moko wone muy lan wajjal al bihi kulliyati muwahida muslimatan muhsinatan wa murshida yàlla maa ngi lay ñaan sama lépp na nga ko kennal ci lan muslimatan doon ay jullit yu wér yu jébbalu muhsinatan doon ay rafetalkat yu wér wa murshida doon ay jubalkat loolee mu di ca dox di ca dox di ca dox ba liggéeyal yàlla liggéey bu rëy bii nga xamante bi moom la ko liggéey di xaafisul quraan di ko ragal yàlla di jëmm joo xamante bi ne waxoon naa leen ko ni leen moonu génne ci ak rëy de jëminu ci ak toroxlu génne ñu ci ñagas jëminu ci ak ratax génne ñu ci dëgër jëminu ci ak nooy génne ñu ci ak bañ jëminu ci ak bëggante génne ñu ci réeroo jëminu ci benno génne ñu ci ginnaawante jëminu ci ak dëggoo Cheikh laat moo nu génne ci réere kan mooy sëñ Touba yóbbu nu ci xam kan mooy sëñ Touba illaa an kaana tariqal muridiyya fawqa jami a turux ba yoon wi agsi fii mu agsi tey bari na koo xamante mi ne am nga fit am ndam am sañ-sañ sañ wax bi Cheikh Abdoulaye toogee la liggéey bi mu liggéeyal yàlla kon dañuy ñaan sunu borom yàlla na ko sunu borom fay te fa yàlla ca ñëpp turu waxin la waaye wa anna laysa lil insaani illaa maa saa wa anna sa'yahu sawfa yuraa loolee di dox di dox di dox di dox ba ñim fi bàyyi ñim fi bàyyi bokk na ci kenn ki nga xamante bii ne mooy jëmm ju tedd ñi nga xam ne moom la ñu toog fi yotam tey di sëriñ Modou sëriñ Modou yàlla na yàlla guddal saw fan sëriñ Modou yàlla na yàlla guddal fan sëriñ Modou yàlla na yàlla guddal saw fan yow day xam naa bu bindkat ba di wax naan bi jiddin laa bi jaddin kulla mu majjidin fahal jaddu bi laa jiddi bil di su fekkoon ne amoon na lu ñu ko mën a wax ñu ne yow la doon wax tey bi jiddin yëf yi farloo koy maye laa bi jaddi nee na doon sox lu ñuy doon ci imaam fahal jaddu ndax maam bi laa jiddin bu farluwul woon bu mujdi dana am la mu am yow de toogaloo rek ne Cheikh Abdoulaye mooy saa baay Serigne mooy sama maam sëñ ma ñaaw si la mooy saa maam yow de toogaloo rek wax loolu Serigne bi sag farlu sag baax. sa bëgg doomu aadama sa sa dëggu sa xam sa ràññee moo la may lii nga am tey kon ñuy ñaan ci kattanu yàlla ak daraja yonent bi yal na la fi yàlla baye yal na la yàlla sutural yalla na la yàlla taxawu ñi ngi ñaan bi jaahi man haysuma sadatu qaarabahum shamsun tuqaribuha fi sayhi axmaaru aw annahu sakh fi ma yara basrun bahrun aw alayhi abarun wa anharu ni mbolo mi tollu kenn ku ci nek yéene jum fi indi yéene joji yalla nako yàlla fajj ci barkam Cheikh abdullah kenn ku ne xamoon na ni Cheikh abdullah momi ba Serigne Touba tontu uq dafa melone ni Cheikh abdullah rek la doon wax mom day tabki aradi alayhim ka samawati suuf yaa ngi koy jooy asamaan yaa ngi koy jooy lu ko def li mu defoon ci xolu doomu aadama yi ba fii may wax ak yow toppoon liggéey bu mu liggéey ci Tuubaa topp li mu jëmbat ci xolu doomu adama yi tabax mën naa rab ak garab mën naa dee am am am mën naa jeex waaye jukko du yàqu Cheikh Abdoulaye jukko yi la defar te sunu borom ba muy tëgg Seydina Muhammad da ko ni wa innaka la ala xuluqun asimin kon yal na nu ko yàlla fayal taxawaay boobu ci la Serigne Modou Mbacké taxawee kenn ku ci nekk ci réew mii nga ak fo meuna nek ak fo meuna jóge billahi wallahi tallahi wama ma shahidna bi illa bima alimna alim naa ku ne jàkk sëñ Modou mbake dang ko beug ngir itteem ak pass passam ndax doomu aadama dafa mu lu gën bopam dom adama boko sompe rek mo wad seigne Touba dafa am ci taalibi yi kenn ko xane ne dafa dikon diko wax am tuddu seigne Touba ne ko bo deme nang ko tuddi ki nga gën fonk ba tuddu ma jàlle mu di ko nuyoog sëriñ bi seigne bi ko tuddu nga ko mané ko waaw mu ko koko ko tudde mu ko sa bop sëñ bi ko nga ne mu ne saa bopp laa ko tudde ndax Mbàkke kenn gënalu ma saa bopp sëñ Tuubaa ko ak saa yekkoon doomu aadama wala xadd karam naa bani aadama wa amal naahum fil barri wal bahri wa rasaxnaahum min atayibaati wa fadanahum ala kasirin mi man xalax naa tafdila lu yàlla bind doomu aadama ci gën kon fonk gi nga fonk doomu aadama yi fonk gi nga fonk yàlla rek la ndax ku la gën a fonk doomu aadama moo gën a fonk yàlla xam ne li nga yor sëñ tubaa moo ko moom te nga xam ne sëñ tubaa liggéeyal na yàlla te yàlla am na pay loola yàlla jox nga delloowaat ko ci bindeef fii sëñ Modou Moussa Mbacke dafa dikki ko Mbacke dañ nuy teral ngir sa jëmm dinu jox maak Cheikh Mamadou Fadal mii ñu lay laaj jox-jox boobu ci boppam ana nan lañ ciy def sëriñ bi ni leen bu ngeen ci defee lii farata ba noppi li nga xamante bi ne moom laa bëgg mooy ngeen di ci dimbali taalibe yi kenn ku ci nekk bu dikkee ci yéen ngeen taxawu ko taman ko kanam gu leer Mbacke ca loolee ca nga nekk waaye nag ka waxoon ne مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سيرن بي نيغي نيان كا واخون لولي واخون ني قل لله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء واخون لنن لا اك لو سي بري بري تا القران مومو واتيو ليب لوم تيوخ ليب دغ لا دي تيري بو خاني مومو تلي تيري واتي كو سي يونت بو خاني مومو تلي يونت يي واتي كو سي ديني جو خاني مومو تلي ديني يي مك يالنا يالنا موتلي سييني يالنا لا يالنا تاخو yal na la yàlla aar ku fi teew ku nekk yal na yàlla faj say aajo ci saayir ak ci baatin la leen waxoon rek ca tàmbali ba nag xayrul kalaami maa xalla wa dalla wax moom jëcc a gën mooy wax joo xamante ni bii ne dafa gàtt te tegu ci yoon tey sëriñ bi damay bañ la doon séeréer ba dal ma ku toog ci sa kanam di wax buy wax na wax lu mu xam séeréer ba nag dama yàlla baal bokki séeréer yi ñu baal ma moom dana daal di ki toog ci sëriñ bi rek bëgg jàng waaye nag du bi téere du def dara day toog ci sëriñ bi rek di déglu bu sëriñ bi jàngal alxuraan muy déglu ba def ko juróomi ne seriñ bi mokkal naa de sëriñ bi di ko ah, boo mokkul war nga cee xam dara de waaye nekkati li wolof yi naan jàngul tari du ma yegg ca baat ba di ngeen wolof yi wu am benn bis mu ne sëriñ bi mokkal naa sëriñ bi ni ko bismillah maari di tali ab dëj am sëriñ bi ni ko toogal ci kanam bi mu toog ci kanamu oto bi origise laay bañ de moo tax ma gàttal waxtaan wi ba ñu demee ba ca dëj ba sëriñ bi ni ko neel mbooloo mi nañu jàng faatiya ak ñeen fukki lixlaas balaa kenn wax dara ñu dooru jublu ci waxtaan wi mu rajo bi mbooloo mi kon ngeen déglu nu sëriñ bi nee na na kenn ku nekk jàng faatiya ak ñin fukki lixlaas mbooloo ma ñëpp tàllal seeni loxo mu këfaat rajo ba dal na lixlaas bu ngeen ko xamul nag mooy tabat yaddaa ah Mbàkke loolee laay bañ mu dal ma may bañ óor waaye xam nga ni yow rek bu doon wax rek loo xamante bii ne lu tegu ci yoon la te dëggu wallaahi Mbàkke ñu ko mën a wax a ngi fi ñi ngi ñaan yàlla yalla yàlla guddal fan wi yal na la yàlla taxawu jërëjëf Mbàkke sëriñ bi bég na lool xoolam sedd na lool tur woow yi nga xam ne Cheikh Abdoulaye moo ko tudde woon te du samp genn garab guy lax du samp mukk lu wéer way daaru la sëñ Touba waxoon yonent bi naan ko saakal malaasula si arjo najaatu bihi dunyaa wa uxraa fa layti awloo jaaru saaka kooka almalaasula si mooy sama wiir waay wa nga xam ne arjo bul ne yaakaar naa de arjo wóor na ma ne najaatu bihi ci barkeem képp laa mën a mucc muy rasulillahi dunyaa adduna bii nu nekk wa uxraa ak alaxira fa layti yellante kon jaaru ma dëkk awloo fa yotam waaye nag waxula si iqa gis mi an siyaarati yi moo gàllankoor sama yaram ba dikku ma rek loolu danga moo tax de waaye xam nga ni Cheikh Blad lu mu samp lu nekk day taxaw yéen nooru daara yi ni sëriñ bi nee na jiitalul kenn di leen ca teg sant na na leen gërëm na leen di leen wax alhamdulilahi rabbil alamin fu ngeen jublu fu ne yal na fa yiw nuuru daara yi jublu fu ngeen jublu fu nekk yal na fa ngërëmal yàlla jublu fu ngeen jublu fu nekk yal na fa xéewal jublu goo xam ne day tasaaroo ci adduna bépp ba ku naan ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammadur rasul nga jot ci wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu